mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen neen programme yi yóbbali bés bi muy bàyyeekoo fii ci Sahel Network TV capitali Gambia Banjul Banjawaali Mbay la anti Ada anti Aïcha waaye di leen wax ne rek dañ am gan ci biir kër gi gan goo xamante ne ni ndaw la mu ngi wuyoo ci turi Mohamed Jaxate Mohamed Diakhaté nag bu ñuy seet jaar-jaaram wala bu ñuy seet ci ban askan la bokk dañuy wax ne xeeti naar la jaar na ci Latrikunda Sabiji Primary School kan nag ba léegi rek dem na ci euh, Munazamat Junior euh, foofu la jaar waaye nag juddoo bànjul la yaroo Mandiaye Kunda ñi juddu Banjul ñëpp ñu ngi yaroo Mandiaye Kunda duñ def dara nag euh, lu muy bàyyi anti aada mu dalal ko ci ay laaj rek yu gàtt ah anti mu bàyyi la nga nuyoo rek laaj. Uh, asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan Sahel Network TV ñu ngi leen a nuyu di leen dalal uh, si suñ beneen xeeti programme di leen wax ne tey moom dañ am gan boo xam ne uh, si studio bi. Mm-hmm. gan bu xareñ lool mu mm-hmm. doon ko xam ne ñu ne naar la nag. Mm-hmm. ma gis ne man Mouhamed. si si performance am yu ma dee seetaan man lu ma jot a gis si moom mhm. ah, Mass Man moom dafa nekk nit koo xam ne dafa ñëw with different style mhm. dañ dee gis ne saa yu nekk yow sa own da am sa own fashion way of dressing mhm. ah, ñu wax la lan nga tinkal ñu rek lan moo nekk si gannaaw sa solin bi nga xamante ne dañ dee gis artiste yi di sol ay jean waaye yow mostly sa solin yëpp ay xaftaan la dee nekk ok asalaamaaleykum Gambia maa ngi nuyu ñu ma toogal nii. ñu mhm. si benn plateau. Mhm. di nuyu samay fans and everybody. Mhm. Um, loolu moom dinaa neex dina ma neex pour tontu ko. because of like soo gisee ma lay gën a sol this African because African laa. bien so proud to be African moo tax ma lay gën a wane loolu. and outside de mënuloo jaay dara lu li nga doon li tubaab bi mënuloo jaay dara lu li nga doon. bu dee mos la ñu I feel like suma performance wala suma video sol. te tamit en sa musicien da nga am hmm. ay ñu la dee roy. Hmm. Hmm. waaw soo ñu la dee roy ak les yi gis lu lu neex si yow. ñun tam dégg nga duureel. parce que ñun léegi pour nga dem some places nga sol africain bi fii nii ne ah boo ko solee sax dañoo ne dama tuuti non. sol ko yow nga am defe naa gars yi school. so man dama feel like sol africain tey waroon ñëw rek si yoon bi benn xale moo ah, la ma ne ko soo Friday rek laa a sol leen. <laughs> loolu lañ jàppal <laughs> waaw soo leen jàppal. loolu lañ jàppal so man dama feel like just to sell sell um, myself African xam nga. doon lu am solo mm-hmm. uh, apart from loolu ñu gis ne Mohamed uh, Masman uh, mm-hmm. ñu la ñëpp noonu lañ la xamee Masman ñu gis ne musicien nga so mm-hmm. man su ma la waroon a laaj apart from music yow lan nga dee def. yeah apart from music bakery la damay defar cake. Hmm, cake meenam yi waaw cake meenam yi. dimbal rek la sax dama doon ngeen. xam nga li may wax sax mooy. am nañ kuy defar akar bu ànd ak ay. waaw ñama ñama yi supa supa yeeg. ci kii weeri ko cake nga dee defal waaw bari cake si dama ko dee defal wedding cake si soo xoolee suñu dem dama koy mën a def suma Facebook page yi nii but mostly nag suma WhatsApp status laa ko dee gën a update waaw gars yi ko dee mën a gis si nii yoo xam naa di nga joxe numéro bi after wala nga dem Anta Aïcha da nga am loo ko a mu ngi mas <laughs> ma mas mm. ma yaa damay yaa génne SH mini. waaw mash mash mash mash ma bi lan la tekki. ok waaw. suma wér ne moom Mohamed la comme ni ko saay waxee rek waaye machma bi man maa toog create ko balaa maa dugga si music bi so soo gisee ma create ko parce que Mohamed laa and ma nekk as a musicien ma war a egg stage wala som nga ma ooyee Mohamed soo xoolee tamit du nees tamit and as artiste bu nekk sax waaw exactly as artiste bu nekk soxla nga nickname bu la gars yi mën a waaye den si laa create machma bi but machma bi the meaning saa yoo ma ooyee rek yaa ngi yeah cause suma papa Mohamed la tudda the first M M bi the A suma yaay Aminata la tudda and the SH suma cousin brother moom la suma yaay moom ko ko joxoon yow moom leen xamee brother mooy SH bi Cheikh and the other M mooy suñ taw bu jigéen mami and the last A mooy suñ caat Aboubacar masha Allah so that's the name noonu laa créé name bi nag masha Allah masha Allah masha Allah boppam def ko artiste lan moo la motivé um, dafa nekka lu ma bëgg depuis maa ngi over gën a tuuti daal. Mhm. Um, dama daan mën a seetaan artistes yi like ñu mel ni Salif Keita. Um, Youssou Ndour just mhm. those legends. maa ngi gis ñu ngi dem si tubaab bi di def yooyu ñun so after dama ne ok ñun dañu war a mën a wane suñ booba. Mhm. ñun xale a nañoo wane suñu booba tey ñeneen ak ñeneen ñu ngi ko def tamit out there so moo tax mun mas min tam di def son soli yi xam nga. parce que tubaab bi mënuloo ko jaay dara loolu sa sàllaaka mhm. mhm. moom bu mu amul mais moom mu am ba pare mënuloo ko cause mënu koo jaaxal mhm. yee den xam nga after ba pare su ma su ma stressé dama dee mën a dugal yee pinis déglu musique dafa ma dee frilos moom ma dama dee a fàtte yu so musique daal nekk na lu bëri loolu mën naa moo nekk comme ni ko gars wax soo soo amee stress nga dem pour pour ah, métti <laughs> waaw su ma mën a génne yu bëri si bopp bi so musique daal lu ma bëgg la ah, dafa loolu passion à ah, moi ah, comme suma seeti yaay. ñooñu mhm. moom musique bi dafa nekk seen dret. Mhm. Ah, mhm. comme suma cousin brother yu bëri et musicien leen. yaa ba um, comme suma oncle yi. kenn a ngi just Banjul fii sax private ñoom i guitariste leen. yaa dañ dee play instrumental. ok yaa man sax. naka la tudd Sadibou Sadibou ok. moo tax mu defal kii guitare. <laughs> <laughs> loolu loolu nekk na loo xam ne solo la euh, euh, xam naa ne nag ndeysaan euh, ndaw la ku laaj jàppale la parce que tey jii boo seetloo mu ngay yëngu ci ñaari mbir mu ngay yëngu ci biir kéeg loolu métier la boo xamante ne tey bu bàyyi woon musique everyday ñi ñaa ngi soxla kéeg ndax dund la dañ ko soxla musique bi tamit comme ni mu ko waxee rek wàllu bëggalaate la mm-hmm. waaye xam naa ne lu jiw a jeexul jógu fa mm-hmm. insha allahu taala te su yoon jeexul waaxu si lu jeex mm-hmm. xam naa ne dinañ ko bàyyi Euh, rek mu defal ñu benn benn playback incha allahu taala bu neex a neex a neex ñun moom la ñuy tëjee. ñu tàggu nañ leen naka ah, jox leen dig daje ba beneen jëmi jamono. ba Jawaali Mbay la anti Ada anti Aïcha Mouhamed. waay euh, mashma mashma mashma <laughs> عفوني يورق العيق بيبي بيجي موايب بونو سوري بيبي بيبي جيجي موايب يا سما لجم لجم بيبي داي يورق عمين موتي يا سما الليل داي يورق الأول موتي أحمد ولا سما الليل sell bi solo xam yaa fa ne wax dëgg rek sa yaa fa ne kon woon ma sa bégal waay bay gëm naa sa love du ma sàppi sa géeju bëggee lay fay sa toolu bëggee lay bay yow laa miin te yow laa wóolu sa dal bi seede yow rek la mu ne waat naa ni du ma doon ki lay jooy la ma ne gëm naa ni yaay sama rey ni xol baby jaral samay kool sa naa bi seet yow yaa ma ne Zina bi seet yaay jigéen si man xool fu ne yow rek laay gis dem naa fu ne yow rek laay yegg Zina bi seet yow yaa ma ne Zina bi seet fu ne yow rek laay gis dem naa fu ne yow rek laay yegg baby jigéen mu waay bu ma sori baby yaay sama lëccum lëccum baby Mm-hmm. that was Mas Man. Mas Ma. <laughs> pronounce ma ndim yow la. man dama tontu bi from Mas Ma to Mas Man. waaw ah. <laughs> man man man ana ana ana bàyyi leen Mas Ma. Mas Ma bu ne dafa bëgg essai bi Mas Ma. ah ok. dara la. bu ma leer la wala <laughs> naka la. Mm-hmm. nga Evasco. ah loolu la. waaw performance bi doon loo xam ne am na solo trop am na solo. Mhm. so mas ma man ma bëggoon laa laaj ah, mhm. lu ndaw. comme que apart from music yow da ngay def bakery. léegi comme when it comes to pandemic bii nii naka nga nekk di dundee music bi ak sa business bi. waaw fu mu ne xam yow mu ngi def everything nga lockdown bi dafa over crazy. métti na so da gis. ñu doon mën a def this bad day things and stuff ñëpp dañ ko mujjee xam nga. dañ ko mujjee ñu da ñu ñu mun celebrate bad day comme man yaa ma gën xam so dañ ko dañ ko bëgg léegi nit yi nekk nii together dañ ko stop so it's crazy da gis business bi yëpp a wàññeeku. and the music tamit mu ngi wàññeeku cause mm-hmm. léegi pour dem studio and stuff yabala. Mm-hmm. xam nga cause fu nit yi di nekka dañ dañu ko tere so te ñun gars yi ñun dañ nekk royekaay si gars mm-hmm. gis ne ne like ñu bëri ñu ñu roy so. dafa daf daal. yeah so fi ne yëpp a ngi slow down. waaw ñaan yàlla rek bagage yi. mu dem si jaaw ah coronavirus ñëpp dafa ñàkk a jóg. kon li ñu leen mel suñ coronavirus yi war na dem léegi nag. nga tooy. li nga war a dem so Masma what are your biggest challenges uh, as an artist in the Gambia? waaw xam nga lu artiste yëpp di dream rek laa nekk di dream. Mm-hmm. waaw <laughs> <laughs> waaw lu ñëpp nekk di génn rek parce que bu nekk nga génn nekk foo xamante ne xam nga ak sa dëkk yow te laa waxantu. Mm-hmm. xam yóbbu do am flag bi yóbbu ko yaa ma gën a xam fu sori. Mm-hmm. jam ko fa. xam ne ne Gambia nga jugee like comme ara artiste bi cappa wóolu waaye rek so. loolu mooy suñu mooy suma gént daal. Mhm. mu doon lu am solo ah, comme léegi yaa ngi yëngu si wàllu bécré bi. Mhm. so dinaa bëgg ah, nga joxe nomba boo xam ne képp koo xam ne mu ngi seetaan mu ngi soxla kii. comme yu demee noonu ah, mën nañoo xool si nomba yooyu noonu. waaw sure yaa mën ngaa use um, Qcell line bi am 321. 6305 yeah 321 6305 wala nga use the officiel. 77 210 87. 77 210 87. yooyu ñaar yooyu boo si link up rek. so am na Facebook page. yeah maa ngi Facebook page la dafa ma Facebook comme account bi nii. that one is Masma Jaxate. Masma man moom soo defee Masma Dad rek dégg ma cafa. waaw waaw check waaw. YouTube bi fu nekk. ok just make sure soo defee Masma bi nga add fa DHAT. Mm. waaw si nga ma. nekkul DHAT. no it's D exactly nekkul DHAT. suñ maas yi ñeme short short word yi na am ma nekk di pareel fans as a new song right now um, bëri na tuuti bagaas yi moo yaaxa rek suñ loolu ñu doon pareel lu garaaw pour fans yi pour surprise gay waa after bagaas yi ñëw just two weeks balaa loolu dem ñu mujjee back up mhm. so this pandemic thing su demee rek non mom nekk na lu am solo parce que gis naa ne seet na bi moom moom mu ngi lëmb dëkk bi. parce que xale yi sax adama ko mooy waaw jaay ko nekk na lu am solo. soo ñu bàyyi la rek sa mm-hmm. sa final words. yeah ok eh, mm. balaa ñuy tàggatoo. waaw nekk du ma def dara lu dul. santa suma ñaari waajur mm-hmm. santa suma friends and fans family everybody maa ngi leen a gërëm bu baax fu gars yi téye di support nañ ko gën a pousse rek we will get there affaire si gëm-gëm la work hard ñaan yàlla loolu moo fa nekk there is no magic in anything waaw so lu lu leen xam magic rek kon dégguwut waaw soo lu déggu rek moom mooy xam nga ñu gën a support waaw man fu ma gars yi di séntu séntu rek man tam may séntu gars yi ko raw mm-hmm. yaa cause nit ki ñu ne mbooloo mooy doole soo ko amee rek yi will go mm-hmm. yaa for my own belief ak I think selalu ingin and believe. yeah, so. Okay, loolu tanpa am fi wax yu nikah koy moom dañ kontaan parce que waaw loolu semua nekkal ada lu am solo la ba pare su man moom fecc naa si gannaaw am solo am solo Euh, ñu ngi lay ñaanal li ngay séntu sax fi ngay bëgg a àggal euh, yal na la fa amiin amiin su ko defee ñun ñëpp ñu bëggee si tamit mooy loolu waaw ñun ci artistes yi nga di euh, Gambian artistes yi nga di gën a déglu mooy ñan ma mm, Gambian artistes yi fii nag um, ST mm. dama ko dee déglu cause um, he always deliver messages mm-hmm. waaw dama ko dee déglu um, su Sunyi is a part of someone that playing instrumental singing mm-hmm. am barhama waaw man waaw man dama dafa am ku nekk lu tax mën a dee déglu waa cause danga ma dee modifier jokkal ma leneen mm-hmm. waaw mun naa man ñaari yooyu daal laa dee gën a déglu mm-hmm. Iya. tak lah. Hanya ah, tak. Ya. Aku semua bawa. Ah. <laughs> Iya. Ada pada yang semua bisa dibentuk yo. Aku mau semua bawa. Lalu aku ah, iya, iya. selalu keraka ada ada malah barangnya tak gunyu sih. Wah, mbok kayak nyoba di gandor. Hmm. Mas maling amon tay sebir studio di Sahal World TV. Hmm. Dilan wah ne like len subscribe yen nih fans hmm. ami out there. Sen dom mo fi nekkoon seen di Mas Ma. Dilan jaajëfal ba beneen Jadi jërë ngeen jëf.